te tey temps yi gis na ko wax nga si Adji Sarr ak Sonko. Mhm. mais dafa mel ni population Sénégal la plupart laay wax du ma wax ñëpp. Mhm. ñëpp d'accord ak yow. bien sûr tey jii ñu gis benn sëñ boo xam ne euh, bëgg maa tudd turam bugg ma jaar si turam. mu mhm. génnaat def yeneen révélation ne kii di Adji Sarr moom sëñ moom moo moo nekkoon taalibeem tey jii dafa génn ay saatu boo xam moo ni ko lii nii ay dil la woon noo déggee kàddu yi. <laughs> xam nga bu dee da ngay dili dil ci turu. bay dox naa moo taar réew mi moo taar réew mi loolu du ma ki dañ di ko wax dëgg neexul yàlla dëgg la bëgg. sooy dund waxal dëgg sooy dee waxal dëgg mais Adji saar ku ne xam nga ne moo tëj réew mi ak képp ku ko mën a jàppale nag yaa mi. Adji Sarr bu demee ba naan dil la ñu naan nee naan dil ak du dil xam nga ne tëj na réew mi ndax gàkkal doomi aadama ndax yàlla dafa ne ñii mooy. neneen fa ñaata nit fekk yoo xam ne bokkuñu fu ñu jógee. Mhm. ku fekkee ba Adji Sarr di kii ñu ne Sonko dal na ci kawam comme na ko fekkee. kenn mënu koo fekkee non c'est pas vrai kenn fekkewu ko. ñu bëgg a ñëw xotti ma jàmbur yàq dara comme ni ma ko waxee woon ca waa di sekk mhm. nañu bàyyi yokkante der bi ñuy def nañu bàyyi xotti waruma doomu jàmbur yi ñuy def mhm. nañu bàyyi la ñuy def Adji Sarr nee naa la bu la jigee lii bu la jigee ma xam ne mbër nga man maa la ko wax bu la jigee nga xam ne mbër nga nañ dem ba ci kanam après ngay comprendre. tudd nga ko sànq foofu.